alhamdulillahi alkarim silminal ala si xaali bi furoodi wa sunan alhamdulillahi alkarim silminal ala si xaali bi furoodi wa sunan shakartu li annahu xasaxani li watanin bihi nafa ma aousubillah billah asheytaani irajim bismillahi irahmanirahim alhamdulilahi wahdahu wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala wajal kalaami rachida wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokk jullit yi bokk taalibe yi mbokk yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel seen seen dinte ak ci seen émission yoonu ngëm ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm topp gi nga xam ne yéen a ngi ko ci topp di bàyyi xel émission bi ak mboolem émission yi am ci seen yëpp fa di nuyu ak a siyaar sunu sang sunu lépp Cheikh mun Mountakha al Bachir di ko ñaanal sunu borom tabaaraka ko taxalaa defal ko tawfiq ak jàmm ba naal yi nga xam ne am na ko ci yoonu maamam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ñun taalib yëpp ñu ànd ko moom waaye noonu lañ koy ñaanale xalifa généraux yi nekk ci réew mi yëpp fa tabaarakallah Mbàkke xombal mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Cheikh Absa ak njabootu sëriñ Cheikh Absa gépp fa ci bàyyi gi nga xel nga xam ne ña ngi koy bàyyi xel émission bi Ah, mbokk yi ginnaaw boo xamee ne nag seen émission yoonu ngëm ah, mel na ni émission bi incha allahu taala mooy émission bi mujj ci weer wi ndax ah, defoon nañ ko ak yéen ci lu bëree bëri ci xew xew yi diine waaye ci alquran ak weer wi dayoo buñ ko war a jox nan la ko ab jullit war a toppatoo nan la ko war a bàyyi xel incha allahu taala sun émission bi mujj ci eh, ajjuma ji nga xam ne mel na ni moo mujj ci weeru koor ñu war a waxtaane yéen li nga xam ne xel yëpp dañ ciy dem li nga xam ne saa yu ñëwee xel yëpp dañ ciy dem képp koo xam ne e, diine yitteel na la waaye képp koo xam ne yaa nga woon ci koor gi saa yoo xamee ne wax nañ ne ay fan moo des ci koor gi xam ngeen ne am na loo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko farataaloon ci ñi nga xam ne ñoo doon weer ñu koy wooye zakatul fitre zakatul fitre olof yi di ko woore wooye muurum koor mu doon loo xam ne lu am solo la yàlla tabaaraka wa taala moo ko farataal ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ah, bi nga xamee ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ma ngi madinatul munawwara ci la ko farataale ci moom mu wax benn saxaaba boo xam ne da ko jox ndigal muy wër mbedd yi di wax lii nga xam ne moom la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne yaa ahla jamaaha inna allaha qad farada yéen mboolo mi yàlla farataal na ci yéen ngeen géndi murum koor mu doon loo xam ne nag lu nit war a baxel la mu doon loo xam ne ki nga xam ne day woor lool mën na ñàkk ci moom ci hadis boo xam ne ibnu omar radiallahu anhum moo ko anhuma moo ko nettali mu ne qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam zakatul fitri min aramadan saan min altamri aw saan min alchair ala alabdi walxurri waldakari wal untha walzaxir walkabiri min mu ne yàlla yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na yàlla farataal na ci yéen muurum koor ni ngeen koy génnee nag mooy mudd mudd mooy nga def nii say loxo moo xam nga génne ko ci tàndarma wala dugub walla xeeti ndax dugub bari na ay ay ay ay ay dugub bi saañ ak dugub bi suuna ah, mu ne lool ci ngeen koy génne waaye nag mu war ab jullit as gor as mooy ab mu war ab jullit boo xam ne seere na yàlla mooy buur seere ni yonent bi alayhi salaatu salaam lan war a jaam waaye war tamit as gor war as gor as jamono yi mooy ki nga xam ne nekkut jaam lool loolu nag léegi amatut ndax jamono yi yàgg yi la amoon kon daal war na ab jullit war koo xam ne as gor la moo xam mu nekk jaam waaye war góor war jigéen war mag war war daw ki nga xam ne nekkut ab jullit waru ko waaye soo gisee yonent bi alayhi salaatu wax hadis bi kon day ki nga xam ne dafa nekk ab jullit ba noppi nekk as gor moo xam mu doon ab jaam moo xam mu doon góor moo xam mu doon jigéen war na ko te hadis bi mbooleem boroom xam-xam ñoo ci dëppandoo kon ñu xam ne sakaatul fitri li mënta ñàkk ci doomu aadama la moo tax yonente bi alayhi salaatu salaam fonkoon ko lool bàyyi ko xel daa ko diggal ay ñoñam daa ko diggal ñi nga xam ne ñoo aju ci jullit yi moo tax ibnu abbas mi nga xam ne ku sore ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon kilifaam nee na moom sax hadisam bi moo gën a lëng nee na inna allaha qad farada alaykum qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sakaatul fitri tuxru tuxratu saaimi min allaxwi wa rafath wa tuamatul masaakin fa man adaaha qabla salaa fa hiya zakatu maqbula wa man adaaha baada salaa fa hiya sadaqa min as-sadaqaat yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci làmmiñu ibnu abbas nee na yàlla tabaaraka wa taala wax na yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko farataal naa ci yéen mburum koor waaye li tax ma bëgg ngeen def ko nag mooy dama bëgg seen woor lépp làpp maanaam lépp baax lépp baax seen woor lépp baax ndax doomu aadama su wooree du ñàkk mu xool lu mu wërta xool wala mu wax lu mu wërta wax wala mu def lu mu mënta def moo tax yàlla ci yërmandeem la mu waxoon ne Eh, dama bëgg sama yërmande laa tax na laa na taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru dunuba jamiha bu leen décourager sama yërmande bu leen décourager ci sama yërmande moo tax mu ne ma sa ma ma wàcce leen muurum koor ma farataal taal ko ci yéen ngir seen koor laab ci minal lax wi ci caaxaan yi nga xam ne xëy na sax wooroon nga nga def ko te yëgoo ko wala nga def ko te yëg ko waaye war a fas nga yëkkate ay kàddu yoo xam ne xëy na sax nekkul loo war a wax lu mel ni jiw ak yu mel noonu nee na ma farataal ci yéen muurum koor ngir loolu génn ci yéen maanaam ya nga xam ne moo ca nekkoon te bokk ca génn ci mu ne su ngeen ko euh, génnee ba noppi nag ñii laa bëgg ngeen jox ko muy masakin ak foqara koo xam ne lim am doyu ko ci gàttal ki ci gàttal koo xam ne lim am doyu ko nee na su ngeen génnee muurum koor ñooñ ngeen ko jox mu wax ne képp koo xam ne nag génnee nga ko lu njëkk ñu julli ci nangu lan la sa muurum koor fa man adaaha qabla salaata fa hiya zakatu maqbula képp koo xam ne génne nga ko lu njëkk ñuy julli ci nangul nañ sa muurum koor waaye képp koo xam ne danga nga koo génne ginnaaw boo julli jee ba noppi nee na loolu moom sarax rek lay doon ci sarax yi incha allahu taala danañ ñëw ci ki nga xam ne moom la ñu sëriñ Tuubaa toppaloo radiyallahu anhu wa nafaana bi barakaat yi di imaam Malik ndax moom la ñu sëriñ bi toppatoo moom lañu ñu sëriñ bi toppaloo bokk na ci xam-xam ki nga xam ne moom ngi référence moom mooy sa référence suñ tubaa radiyallahu nu moo ñu topp la imam malik daneen ñëw ci moom ni mu ko daa génnee kon daal ala kulli xaal xadis bi nga xam ne yonent bi salaatu wasalaam wax na ko ci lamiñu ibnu abbas kon lu mat a ba xel la ndax nee na kon muurum koor ahamiyatu wala ahamiyatu bi wala kayfiyatu zakatul fitr mooy day laabal sa koor ci caaxaan yi nga daa def wala ci wax yi nga daa wax te waru ko wax nga xam ne moo ko aajoo mooy ki nga xam ne amul lu ko doy kon loolu war nañ ko ba xel baax baax kon loolu hadis boobu moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ci nettali boo xam ne Ibnu Abbas moo ñu ko nettali ñu ñëw ci wuute goo xam ne nag wuute gi nga xam ne wala waxtu wi nga xam ne moom loon war a génne zakatul fitr waxad ixtalafa imaatu arbaha fi waxti ixraajiha xam ngeen ne ngir yi muy Shaafi Malik Abu Hanifa Hanbal mooy ñeenti ngir yi nga xam ne ñoom la ñuy wala ñu ëpp ci julli ji ñoom la ñuy topp su fekkee fii ci Sénégal fi gën siiw muy ñi gën topp ngir imam Malik Sénégal ñëpp moom la ñu topp ci mbooleem tarix yëpp fa tabarakallahu kon wuute gi nga xam ne wuute nañ ko ci soo demee ci ah, ah, Saafiya moom dafa wax ak Ahmad ak Malik ci riwaaye bu wóor mu ne sàkkaatul fitr ma ngi eh, war ci ki nga xam ne dafa woor su jant bi soyee su jant bi soyee moo xam fan bi mujj ci weeru koor wala fan ba fan fan fan ba ca ginnaawam xadis bi ña ngi ko tegtaloo ci xadis boo xam ne Abu Hurayra moo ko nettali Abu Hurayra di jëlee ci xadis bu wér boo xam ne moom weeru koor muurum koor su mosaa ñëw daana ko génne lu njëkk ñaari fan avant ñuy wor avant ñuy korite te loolu biñ ko laajee da ko teg ci xadis aaya bi nga xam ne yàlla tabaaraka wa taala moo ko wax muy baax da auzu billahi min alsheytani irajim bismillahi rahmani rahim yaa ayuha alladina amanu anfiqu min altayibati ma wa mimma axrajna lakum min al ardi ila axiril aaya moo tax moo eh, abu hurayra da koo teg ci wax ji nga xam ne yàlla da ko wax ne yéen ñi nga xam ne da ngeen gëm yàlla te topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam seeni alal yi nga xam ne da ngeen ko liggéey ba mu lew leen waxuñu alal joo sàcc waxuñu alal joo xam da nga koo lii da koo lubal waaye anfiqu min at-tayyibaati ma kazzabtum alal joo xam ne da ngeen koo liggéeyal seen bopp kon su ngeen ko liggéey ba noppi na ngeen koy financé jox ko ci jox ko way yàlla yi way yàlla yi mooy ñi nekkal yàlla ci kaw suuf te mooy doomu aadama yi Abu Hurayra nag ne comme que yàlla moo wax lool te alal ji nga xam ne moom laa euh, moom laa liggéey ci sama loxo war koo génnee mburum koor kon mën naa ko génne lu njëkk ñaari fan lu mel ni euh, incha allah taala incha allahu taala mën nañoo woori dimanche wala altine nga génne ko suba ci ajuma ji wala tey ji am na Abu daa daanu ko def teg ko ci aaya boobu kon imaam Malik moo wax loolu kon mën nañ koo génne lu njëkk ñuy worate lu njëkk ci ci ci su nee suba la ñuy wor fan ba fan ba ca ba ku njëkk wala ba ca topp imaam Malik waxaat na tamit ne euh, mën nañ koo génne soo xamee ne fajaru fajaru korite gi fajar gi nga xam ne mooy fajaru korite fajaru korite mooy euh, su fekkente woon danoo danoo danoo woor danoo woori altine dim maanaam altine ca fajar ga mën nga ko génne avant ngay julli ji moom it fi mu ko wax fi mu ko teg dafa leer ci hadis bi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wax na ko wax ne abu hurayra euh, ibnu abbas moo ko nettali mu wax ne fa man adaaha qabla salaat fa hiya sakkaatu maqbula képp koo xam ne génn nga ko lu njëkk ngay julli ji nangu nañ la sa koor moom da ko teg ci xadis boobu kon mën nañ ko génne soo xamee ne fajaru korite gi rek nga génne ko jox ko ña nga xam ne ñoo ko aajo aajowoo waaye nag am na koo xam ne moom euh, Abu Hanifa moom nee na xam nga dafa am Imaam Malik dafa wax ne doo ko génnee ci lu dul ñett yi lu mel ni dugub dugub bi suuna wala saaña wala la nga xam ne waa réew ma moom la ñuy dunde su fekkee sum Sénégal lu mel ni ceeb ak yu mel noonu nee na moom ci yooyu rek nga ko mën a génnee waaye Abu Hanifa nag moom dafa wax ne moom mën nga ko génnee ci xaalis bi ma xanaa dangay ngay xool la nga xam ne moom la kilo ceeb di jar nga jox ko ña ko wa ndax moom fi mu ko teg dane euh, ki nga xam ne da nga koo sarax wala danga nga koo jox muurum koor su su dee ceeb. wala wala wala dugub da koy jaayi rek da koy jaayi jëfandikoo xaalis ba dem jëndi ndax néew na koo xam ne danga koy jox ceeb ne ko jox ma am dugg loolu euh, loolu ñu koy def bariwut waaye ñoom fekkee kon ñoom nga koy jox kon ñoom dañ koy jaayaat ne Hanifa wax ne kon man nga koy def xaalis nga xam ne dañ leen koy jox rek duñ ci am ay coono dem jëndi la nga xam ne moom la julli yëpp def kon daal ala kulli xaal lu ci mën di am mooy sàkkaatul fitri lu am solo la loo xam ne war nañ ko baaxeel bu baax a baax. am na xadis boo xam ne nag ñu bari ñu ngi koy wax nekkut loo xam ne dafa wér xadis bi nga xam ne nee nan yonente bi alayhi salaatu salaam nee na ki nga xam ne génn wut muurum koor dañuy aj ak kooram mbokk yi loolu doo xadis bu wér doo xadis bu wér muurum koor képp koo xam ne amoo ko wàcc na la du jar ngay la bi ci nettali boo xam ne imaam Malik moo ñu ko nettali waaye ki nga xam ne nag moom suñ ne suba lay ko la ñuy korite ci guddi gi wala ci bis bi yor na euh, arsaade poosam nga xam ne mën na koo faj soxlaay bis bi ba mu des kooku moom farata la lu mu mënta ñàkk la mu génne muurum koor waaye koo xam ne yoroo dara nag wàcc na la wàcc na la kilifa gi moo ko war a génneel ak njabootam borom kër gi moo ko war a génneel soxnaam ki nga xam ne moo yilif moo yilif eh, mbir mbir mbiri doomu aadama yi maanaam moo war a génne mburum koor lu mel ni suñ xalifa seen roo yi mën nañoo génneel xeetu mburum koor lu mel ni suñ président yi mën nañoo génneel xeetu mburum koor suñ ko génne woon bi max naa seen seenu muurum koor dana ko nangu ndax ñoo ñuy def ndax yonte bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne wa ulil amri minkum fa in tanachatum fi shay dee leen topp njëgalul ñi nga xam ne ñoo leen yilif kon mbokk yi nga xam ne ña ngi bàyyi xel seen émission yoonu ngëm ñu xam ne muurum koor lu am solo la loo xam ne jullit bi da ko war a def ndax li nga ciy amee rek mooy am ci ngërëmul yàlla am ci Euh, fekk sa mbokkum jullit mu nekk jafe-jafe nga dimbale ko te loolu da nga koy teg ci alxuraan ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo xam ne euh, alxuraan moo xam ne wa yut'imuuna taxaama ala hubbihi wa yut'imuuna taama ala hubbihi miskiina wa yatiima wa asira innama nut'imukum li wajhillah la min minkum jaza wala zakura ñi nga xam ne dañuy fekk nit mu sonn ñu dimbali ko wala ñu fekk nit mu rafle ñu jox ko mu lekk wala ñu fekk nit mu nekk ci ay difficulté yu grave ñu génne ko ca ñooña yàlla nee na ëllëg maa leen di fay waaye suñ ko defee ba noppi nag duñ bëgg ku ku ku leen ci tagg waaye dañ koy def rek ngir jëmmi yàlla bari na ñoo xam ne ñi ay defkati lu baax lan yoo xam ne allazina yunfiquuna fi sabilillahi bi layli wan nahaar dañuy euh, financé euh, seen alal ci guddi ak bëccëg waaye bëgguñu kenn koo xam ne xam na ko ñee ñooñu ëllëg suñu borom dañ leen fay kon ñu xam ne muurum koor farata la joo xam ne yàlla moo ko farataal ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci midinatul munawwar bi nga xam ne gàddaay gi am na ñaaraat ndax yonente bi bari na yu bari yoo xam ne midinatul munawwar la xewee lu mel ni jullig àjjuma yonente bi ma ko yàlla ma ngi ko farataaloon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi ñuy dem midinatul munawwar ci wenn xur lu mel ni ay sàkka muurum koor yu mel népp nag yu mel noonu népp yëpp nag yàlla medinatul munawwara la ko digal yonte bi alayhi salaatu wasalaam su ko defee ñu baax baax te génne ko te dimbali ñi nga xam ne waxtu julli wi euh, danoo waroon a dem jaamu ji yàlla waaye ñàkk euh, lun def wala ñàkk lu lun dunde moo tax ñu yalwaan ñu fexe ba teggi leen lool ndax mboolem soo xoolee boroom xam-xam yi nin bëggee nga teel ko génne mooy ñi ba na bari ca jumaa ji rek di nekk di yelwaan ak yu mel noonu kon teel leen ko génne ci guddi gi wala lu njëkk weeru koor ndax am na am na am na saxaaba boo xam ne nee na sax dagan na nga génn ko ci loolu weeru koor waaye loolu du ñu sori comme que imam Malik lañ référence te nee na saa yoo xamee ne mën koo génne lu njëkk korite ci ñaari fan yi wala soo xëyee bis korite gi ca fajag nga génne ko loolu li ñu ci jublu rek mooy nit ñi bañ a yalwaan bañ a yalwaan bañ a nekk ci jumaa yi di sonal seen bopp di yalwaan waaye bëgg yërmaani joo xam ne yàlla am na ko ci xeetu mu bëgg ñi ni nit ñëpp di euh, feetoo feet gi ñoom masaakin yi ak way yalwaan yi ñu feetoo ko noonu su fekkee ne teen nga ko génne nag seen xel day dal ñu mën a sañ si dem julli ji def li julli jëpp def su ko defee ñu bokk xel baax ba xam ne lu mënta ñàkk la Ah, di ñaan yàlla tabaaraka taala mu defal ñu tawfiq ah, koor gi liñ ci jote def ci jaamu yàlla mu nangul ñu ko te te làqal ñu ko léegi-léeg nga dégg olof Njaay di wax ne di mu làqal ñu ko fu yàgg ak gut waaye suñu borom yàq yàq du àkk ci moom ndax wa makaru wa makarallaahi wallaahu xayrul makirin kon nañu nañu nangu suñuy jaamu yàlla te dencal ñu ko te may ñu ñu fekkee koor gi ay ati ati at at mu ñëw doo fekk ñu ñu gën a am wér gën a am kàttan gën a mën a def lu baax ci daraja Seexul Xadim kon mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci topp gi nga xam ne yéen a ngi topp topp seen émission ngëm ci weeru koor yi fa tabarakallah ñu ngi sant mbokk yëpp di ñaan borom bi tabaraka wa taala yéene ji nga xam ne amal nañ ko ngir liggéeyal ci yàlla ngir liggéeyal ci ku tegg Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul mu nangu ñu yéene jooja ñu bokk ko mbokk yëpp kon ña ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm suñ kërëm suñ suñ eh, caméraman sëñ Asan Diop ci rafet liggéey bu rafet bu muy def di ko ñaanal suñu borom defal ko tawféex ak mboolem personnel bi nga xam ne eh, ña ngi ci seen bi yëpp di nii soxna Ndey bi nga xam ne mooy jëwriñ ji ak mboolem mbokk yëpp di ñaan yàlla daal defal ñu tawféex ñu fekkee eh, weer wi ay ati ati at kullu aamin wa antum bi xayri wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh alhamdulillahi alkarim silminal ala sixaali bi furoodi wa sunan alhamdulillahi alkarim silminal ala sixaali bi furoodi wa sunan shakartu li annahu xasafani li watanin bihi nafa